جاءه المختار من كرم مولانا وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم مصطفى بنو حنيفة منهم وافد يمان منهم يمان تجيب نعد وفتايم مولانا وصلي يا إلهي وجزينا أبدا عنا محمدنا مختار في القدم الصلاة وطيء شم جيشان له وفد كلب فعد خشينا مع مرادي مولانا وصليا يا إلهي واجزينا أبدا وأن محمدنا المختار في القدم وكذا صدف قل خطعم وفد السلك الدبلوماسي كله نستسمح منكم الضيق والهرج xaarij an saydiratina walakin sanatahammalu insha allah Aly Ngouille Ndiaye di ministre de l'intérieur gis sa ndimbal dëgg gis nañu temeen ndimbalu nguur gi dëgg gis nañu témeen ndimbalu mboole mbokki jullit yi ñëw ci bërëbu sell bi moom xalifa bi munu leen limondoo ñii ñëwoon sànq nekk fii amaana seen xel dalandi ñu daldi wax li des xalifa bi nee na te ñu waroon tàmbalee cérémonie bi cinq heures ñu daldi yemale mbir mi sept heures mooy vingt yéene jooju waaye suñu sëriñ di Ceerno Muhammad Bookar Kan suñu toogoon fi nga xamante ne mooy daaram am ñu ñëw fekk mbir mi xat na moom Ceerno Muhammad Bookar Kan mu ne tafassahu bayna kulli karimayni bayna kulli jalisayni yi ni majlisun kon nag waxtu bi lu mu xataxat di ñeen ñu góor góorlu bu baax a baax ñu daldi ci xejal programme bi ki nga xamante ne nga amoon kàddu boo war a yëkkati nga rotal ko mu gudd ñu góor-góorlu bu baax baax kàddu yi ñu daal di ko xejal ci waxtu bi Amadou bismillah Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Ali Ngouille Ndiaye, euh, nous voudrions vous souhaiter la bienvenue ici à la mosquée omarienne ainsi que l'ensemble de votre délégation pour sacrifier comme à l'accoutumée, comme on le fait chaque année, à la cérémonie officielle de la ziara de Tcherno Seydou Nouroutal et de Tcherno Muntagatal, qui en est cette année à sa 40e édition. Euh, sans plus tarder, nous allons procéder à la récitation de quelques versets du Coran pour, ouvert, pour ouvrir la cérémonie. Monsieur Abdoulaye Dien va nous le réciter, Inch'Allah. Tiens Abdoulaye Dien. Il est, diplômé de l'Institut Mohamed VI euh, qui forme les imams au Maroc. Voilà, il est sorti de cet institut-là. Abdoulaye Dien.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 وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما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 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم تبارك الله Monsieur le ministre de l'Intérieur, avec votre mission, comme demandé tout à l'heure, Nous allons faire une entorse au protocole et passer la parole tout de suite au ministre marocain pour son allocution, puisqu'il doit prendre tout à l'heure son vol pour retourner au Maroc, Inch'Allah. Donc la parole est au ministre marocain pour son allocution. Euh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati al-akramin. صاحب الفضيلة الشيخ مدني طل أصحاب الفضيلة شيوخ الزوايا والطرق السيد الوزير ممثل فخامة الرئيس رئيس جمهورية السنغال سيد مكي سال السادة الوزراء الحاضرين السادة المستشارين السادة أصحاب السعادة ايتها السيدات ايها الساده احضر هنا مكلفا من حضره امير المؤمنين صاحب الجلاله الملك محمد السادس عزه الله ليمثله في هذا الجمع الكريم الذي تنظمه الطريقه التجانيه فرع طل والتي دأبت عليه إقامة لذكرى فقيدها وفقيدنا جميعا الشيخ سعيد نور هذه الدرية التي من درية سابقة وفية درية بعضها من بعض كلها على وفاء للمبادئ الكبرى مبادئ ترسيخ الدين في قلوب الناس بالتربية الصوفية الواردة في القرآن الكريم باسم التزكية فهنيئا لكم هذا الشعب بقيادته الرشيدة قيادة رئيس الجمهورية السيد ماكي سال وهنيئا له بهذا الاستمرار في الوفاء لهذه التقاليد التي يتورثها الخلف عن السلف وما أحوج الناس إليها في هذا العصر فقد استمعنا إلى آيات بينات من القرآن الكريم ووردت فيها خصال المؤمنين وورد فيها ما يخالف تماما عقيدة الإرهاب وقتل النفس بغير الحق ولكن الذي يهيئنا للاستماع للقرآن الكريم والاستعداد لتلقيه والعمل به هو طهارة النفس والطرق الصوفية مختصة في التربية في تطهير النفوس وتهيئها لتلقي أمر ربها وقد فرحنا كثيرا وسعدنا هذه السنة لأننا علمنا أن هذه الطريقة المباركة تستدعي فرعا آخر كحاضر شرفي فيه الشيء الذي ينبئ إن شاء الله في أن تتعاون كل هذه الطرق يدا بيد من أجل ترسيخ هذه المبادئ التي تحتاج إليها الدول وتحتاج إليها المجتمعات وتحتاج إليها الإنسانية ليظهر الإسلام على حقيقته فأنتم بالوقوف عند طهارة النفس تحملون الإسلام كما ينبغي أن يعرف به في العالم فالطرق الصوفية تشبه المدارس تختلف في بنايتها ومواقعها ولكن برنامجها برنامج واحد فما أحوجنا إليها وما أحوجها أن تتعاون على البر والتقوى في التعريف بالإسلام الحق لا عن طريق القول بل عن طريق القدوة وعن طريق السلوك نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لهذا التوحيد وهذا التعاون يدا في يد وأن نمرر هذه الرسالة إلى شبابنا الذين ينبغي أن يفهموا ما هي الطرق الصوفية وما هو برنامجها فيما يتعلق بالتهيئ للوطنية الحقة وللمواطنة الحقة وغير ذلك من مفردات القاموس السلوكي الصوفي بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بندرابي جلبي ceerno madane wi yon kaɓre oɗo ministére marocain kanko jogui affaire e diine e dendagal ko yewiti e diine to to marok nelimo ɗo ko sa majesté mahamadou sadis hafidahullahu wa ra'ah o ari ƴetti ko avion spécial avion o nan fadimo aéroport joni hokko tagui protocole o change waɗi ɗum change de o ñaagui ministére l' avion o foti wadde départ ko ɗum tan addimo roi o wi mouhammad sis o wi ɓe mbawa wasde tawede quarantiéme anniversaire ceerno saydou nour alay e saago o ara o lowanima avion yo ar o hawrite hen ɗum addimo o wi omo ñaago oɗon fof mo yaaha o kadi mo wontu o aɗa kikiɗe kono délégation goɗɗo o ma heddo ɗo heddodo e men ha altino so allah jaaɓi معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد توفيق نحييكم تحية الإسلام ونقول لكم أهلا وسهلا في بلدكم الثاني السنغال باسم خادم الحدث الأمرية الخليفة الشيخ محمد المرنتال وباسم الخلفاء والطرق الصوفية والمرجعيات الدينية والأئمة والعلماء نقدم جزيل الشكر والامتنان لصاحب الجلالة محمد محمد سيس أيده الله ونصره ونشكره غاية الشكر Merci, Monsieur le ministre. Envoyé spécial de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Euh, à présent, le ministre, nous allons vous annoncer le déroulé de la, de la cérémonie de cet après-midi. Donc, nous entendrons de suite après le de de la cérémonie et de l'organisation de la Ziara. Ensuite, un des des étudiants de la Fondation Mohamed VI formant des imams au Maroc, s'adressera à l'assistance. Nous aurons ensuite le mot du représentant du Khalif général des Mourites. Ensuite, le, le mot, l'allocution du représentant du Khalif général de, de, de Tidjane, de Tuawon. Puis ce sera à votre tour, monsieur le ministre de l'Intérieur. Ensuite, le mot de Tcherno Madani. Puis le doigt de clôture, Inch'Allah. Euh, je rappelle tout le monde, tous ceux qui doivent prendre la parole, que pour des contraintes de temps, nous allons nous limiter strictement à 3-4 minutes de temps de parole. Éminence, Éminence Khalif Tcherno Madani Muntakartal, serviteur de la communauté omarienne. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Alingui Ndiaye, représentant le chef de l'État, euh, nous venons d'entendre son Excellence Dr Ahmed Taufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques, représentant personnel de Sa Majesté le roi Mohamed VI, coparrain de la Ziara, Monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, Madame la présidente du Conseil économique et social ici représentée, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, honorables hauts conseillers des collectivités territoriales, honorables membres du Conseil économique, social et environnemental, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs le représentant des vénérés chefs religieux, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Mesdames et Messieurs les maires, Messieurs les honorables chefs traditionnels, honorables représentants des familles omariennes de la Gambie, du Mali, de la Mauritanie, de la Guinée, du Nigeria et d'ailleurs. chers invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, et titres respectifs. Assalamu alaikum wa ta'ala wa Louange à Allah subhanahu ta'ala, le maître des mondes, dont le commandement, procédant de sa seule volonté, consiste à dire à toute chose soit et elle est, à l'instant même. paix et salut sur le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, envoyé comme miséricorde divine en faveur de l'univers tout entier. Bénédiction divine sur son auguste famille, ses élus compagnons, ceux qui sont venus après eux et leurs suivants jusqu'à la fin des temps. Nous voilà donc, par la grâce du Tout-Puissant, réunis encore une fois en cet après-midi récurrent de dimanche sur ce site de sainteté pour célébrer la 40e édition de la ziara annuellement dédiée à la mémoire de Tcherno Seydou Nourou et de Tcherno Mountakha L'aménagement des lieux a pu être effectué dans les meilleures conditions possibles pour vous y accueillir dans la plus grande cordialité et dans le maximum de, de confort souhaitable. Sous l'égide du serviteur de la communauté omarienne, le Kharif Tcherno Medani Tal, Ahbab Cheikh Omar et Rabita Ligue islamique des oulémas vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue, chacun, chacune, en ses qualités, rangs et titres respectifs. L'assistance et le soutien de l'État, au travers de ses services centraux et régionaux, comme des structures, de sous -tutelle, comme des structures sous tutelle, ont été d'un apport inestimable à ce bel aménagement. Vous-même, Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui, la plupart des vendredis, prier ici dans la grande mosquée Cheikh Oumar aux côtés de Thierno Madani Mountakha vous n'avez ménagé aucun effort pour traduire de la meilleure manière les instructions du chef de l'État dans ce cadre. Le gouverneur de la région de Dakar, M. Ibrahim Sall, a conduit avec grande satisfaction l'exécution des dites instructions. Monsieur le ministre de l'Intérieur, soyez donc notre interprète auprès du chef de l'État son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, pour lui dire la sincère reconnaissance et la profonde gratitude du serviteur de la communauté omarienne, Thierno Madani Tall, et avec lui, Ahbab et Rabita. Nos vifs remerciements vont tout aussi bien au gouvernement et ses différents services, comme à nos généreux contributeurs qui, n'ayant de cesse de s'investir dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala ont encore une fois fait montre d'une largesse fort appréciée. Le maître de cérémonie donnera lecture de la liste des divers intervenants à la réussite de l'organisation de la ziara. Rentrant dans l'agenda islamique de notre pays, la manifestation de cette année, comme à l'accoutumée, a été ponctuée par des séances de lecture du Saint-Coran et des prières, mais également par une conférence internationale de haut niveau sur un thème on ne peut plus d'actualité. Crise des valeurs et déviance sociétale au Sénégal, quel remède à la lecture du Saint-Coran et de la vie de Thierno Seydou Nourou Tall. En remerciant sincèrement le modérateur, professeur Abdoul Aziz Kébé, les conférenciers, professeur Djibi jakhate et imam Seydou Nourou Muntaka Tall, ainsi que les auteurs de contribution notamment Serigne Mokhtar Kébé, Ahbab, se donnera le plaisir de faire parvenir à tous les niveaux requis les conclusions et recommandations de la rencontre. Éminence, Excellence, Mesdames et Messieurs, la présente édition coïncide certes avec les 40 ans du rappel à Allah subhanahu wa ta'ala dit saint homme Thierno Seydou Nourou Tall mais en même temps elle marque aussi les 40 ans d'existence d'Ahbab dont Nous devons un hommage mérité au Père fondateur. Depuis sa création, en effet, Ahbab se tient debout dans la plus grande vigueur, déterminé et mobilisé, agissant dans la plus ferme résolution, animé par sa seule foi en Allah subhanahu wa ta'ala et son indéfectible attachement à Cheikh Omar, pour œuvrer inlassablement à la parfaite exécution de sa mission. Dieu merci. Aujourd'hui, cependant, sa principale préoccupation est désormais de se de se mobiliser solidairement avec les serviteurs de la communauté omarienne pour la mise en œuvre réussie de l'important projet de reconstruction de la grande mosquée Cheikh Omar de Dakar dans une nouvelle architecture porteuse du temps de la renaissance durable. L'histoire parfois se répète, elle Le fait que l'association Ahbab ait vu le jour en 1980 à l'avènement du califat de Tcherno Muntaqa Tal pour se mettre à ses côtés et l'accompagner peut bien être considéré comme une réplique de deux faits historiques ayant hautement marqué la vie et l'œuvre de Cheikh Omar Al-Fouti Tal. Nous savons notamment que lors de son premier appel au vrai djihad, celui véritablement enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 99 personnes lui ont répondu en premier et composé ainsi son premier cercle de compagnons combattants. De même, lorsque Jawahir al-Ma'ani, joyeux des sens, de Sayyidina Cheikh Tijani radiallahu ta'ala anhu, a été écrit, Cheikh Omar radiallahu ta'ala l'a entouré des lances de protection arrimah en raison de la préciosité supérieure du livre du pôle de la sainteté. Mesdames et messieurs, je vais conclure. Je vais conclure en adressant nos plus vifs remerciements à l'ensemble de la presse, notamment écrite, audio, audiovisuel, en ligne, qui a tout mis en œuvre pour une large couverture de l'événement, tant au Sénégal que partout ailleurs dans le monde. Ici également, le maître de cérémonie vous annoncera la liste de tous les médias concernés. Enfin, à Madame Fatima Tal, réputée sous le nom Djami, et son équipe d'interprètes, nous exprimons toute notre reconnaissance et notre profonde gratitude. À vous, Chers pèlerins, chères pèlerines, nous souhaitons un excellent retour, sain et sauf, comblé de la salutaire satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Je vous remercie de votre aimable attention. wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum Merci, Président Amadou Tijane Anne. Euh, Monsieur le ministre de l'Intérieur, le Royaume du Maroc a mis à la disposition du Sénégal depuis quelques années, dans le cadre de la Fondation Mohamed VI pour la formation des imams, un certain nombre de bourses pour former donc nos étudiants. Et la famille omarienne en a bien sûr bénéficié d'un quota de trente bourses. Un de ces étudiants-là va prendre la parole pour délivrer leur message. Il s'agit de Momod alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin qayum alsamawati wal aradin mudabbir alxalaiqi ajmain alqail fi muxkami tanzilih yarfac illahu alladina amanu minkum walladina utu lilma darajat wa qada an la yastawi alladina yaclamuuna walladina la yaclamuun naxmaduhu subhanahu wa taala xamda alawalina walaxirin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad xaatimi nabiyina wa imaami almursalin alqaail man yuridi llahu bihi xayran yufaqihu fi ddin wa ala alihi wa saxaabatihi ulil fadli wattamkin wa baad maaliya xaadimi alxadrati alumariya alcheikh muhammadan almadani taal awliyaa al umuur ayuha alxuduuru alkarim xafida qutb almaktuumi walbarzaxi almaaluumi sayidi chari tayib ahfada alcheikh almujahid alakbar cheikh alxaaji umar uxayikum jamian بتحية الإسلام الطيبة المباركة الخالدة فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته فيسعدني ويشرفني في هذا الموقف أن أقف أمام حضراتكم السامية وأواجه wujuhakum almushriqata annayira asalatan an nafsi wa niyabatan an zumalaai alaiza fi ilqaai hadihi alkalimati alwajiza التي غايتها الشكر والاعتراف بالجميل حاملا كافة أسماء ذلك الفوج البارز المتفوق وهو الفوج الثاني المتخرج من معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات الذين وضعوا نصب أعينهم قول من قال laa yamtati almajda man lam yarkab alxatara wala yanaalu alula man qaddama alxadara wa man araada alula afwan bila taabin qada wa lam yaqdi min idrakiha watara wa laqad izdaada alqulubu faraxan bi ru'yati haulaai duyuuf alkiram alwafdu almaghribi wa min baynihim baadu asaatidatina alfudala alladina lam ya'lu juhdan fi musaadatina wa tathqifina wa tahilina muddata hada altakwin نقول للجميع مرحبا بكم واهلا وسهلا جئتم اهلا ونزلتم سهلا ومن بينهم الاستاذ عبد اللطيف البكدوري الذي هو من جمله الاساتذه الذين وفقنا بمتابعه بعض دروسه حفظه الله ورعاه هذا هو السيد البكدوري مرشدنا جم الفضائل معروف لدى الدول من مثله نادر ذوقا ومعرفه حباه مولاه جمع العلم والعمل أيها الحضور الكريم إن كلمات الشكر كثيرة ومتعددة فنحن بطبيعة الحال لا ندري بأيها نبدأ لنشكر دولة المغرب عشر وشعبا على تعاملهم معنا بما يكون ذكرى خالدة في قلوبنا ولذلك فكل واحد منا لسان حاله يقول إن المغارب قوم كلهم كرما وكلهم أنجم إذ كلهم علما صاحبتهم فوجدت الصدق شيمتهم ama itixaaduhumu qad zaadahum qiyama ayuha alxaflu almubaarak faqad madat sanataani icnaahuma fi sabilillah nujaahidu bilqalami walqirtaas ونرتوي من علوم أساتذة ذلك المعهد وهو معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات ونسجي الشكر إلى السبب الأعظم والواسطة العظمى وهو شيخنا محمد المدني تال الذي فضله لا يضاهى ولا يبارى ولا يجارى فله منا كل الشكر والتقدير ذاك الذي نال من آبائه شرفا مما أخص به جمع الثقافات حباه مولاه توفيقا وكافأه لحسن خدمته أغلى مكافاته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق مولانا أمير المؤمنين وأن يحفظه جلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي عهده مولاي الحسن وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته À présent, nous passons la parole au représentant du Khalif général de Mourides, qui est ici présent, Serigne Issa Mbake, le frère du Khalif général. Serigne Issa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cheikh Ahmadani, noo ngi leen di nuyu ak mbooloo mu tedd mii la wër ànd ak yow. noo ngi leen di nuyu tuddu Cheikh Mountakha Bachir sa mag ja sa xarit ba bi may ñëw gën na noo seereel seen diggante ak cër bi nga xam ne jox nga ko ko moom itam mu jox la ko kon nag bis bu mel nii ñu di ko defal waajur yu tedd ya ñëw gi dafa daldi war ñépp moo tax mbooloo mi toll nii bi nga wootee ñii nga wooteel dañoo mat wooteel mooy Cheikh Nourou Saïd Cheikh Saïd Nourou Tall ak Cheikh Mountakha ku leen wooteel yaakaar naa ne nit ji uy moo tax nit ñi toll nii seetlu naa ne at mu jot nit ñi dañuy gën a bari te dañu koy gën a def at mu jot loolu tax xam naa ne danañ gën a seet sax def fi ñu koy def ndax dana mujj sori lool ndax wutik nit ñi ndax ñi ngeen di wooteel la ñuy wax kuy wooteel islaam nekk ca naka jekk amu ci kenn ku nga xam ne sa dund gi soxla ngoon nga ci lenn lu taxawal islaam ba yàlla fekk leen ca kooku leen di wooteel nuñ mën def nit ñu si la kon nag Cheikh Madani jëf noo ngi leen di sant sama ja mi ngi lay sant mi ngi lay sant leen mbooloo mi nga xam ne ñëw nañ ndax xam na ne woote bii nga woote tey jii bisam la moom itam looloo tax sax mu yebal ma fi ndax bu mënoon a ñëwal boppam day ñëwal boppam kon nag na nga xam ne ni nga koy waxe waxtu ne ànd naag yow ci lépp ni nga xam ne yow itam ànd nga ak moom ci lépp te loola day lu am solo ci Sénégal senegal gii bu fekkente ne lu mel nii amu fi woon lislaam ji déggoo sëriñ si déggoo yaakaar naa ne ak lu waay man di wax ak loo man di xalaat kon Sénégal gii dana wowuti tey kon nag rôle bi nga xam ne sëriñ si ñi ngi ko fi joué te naka jekk nekk ci yàlla def na ci tawféex ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ngànk lislaam yëpp xam nañ loolu ba nekk ca noonu ànd ak nit ñi loolu di leen gindi ci loolu kon nag loolu lu am solo loo xam ne nii te gis wuyub nit ñi rek xam ne looloo waral nit ñi wuy seen i da nga woote ci lu nga xam ne mooy mooy lislaam mooy ñi nga xam ne ñoo ŋànk lislaam yi taxawal lislaam nekkoon ca naka jekk moo tax nit ñi ñëwee nii kon nag loolu ndamal senegaal la ginnaaw bu mu nekkee ndamal lislaam ba noppi waaye nag ndamal senegaal la te itam ni ma ko waxee léegi lu jariñ Sénégal la ndax lu mel nii rek moo tax li fi am am fi jàmm jiñ fi wax yépp bu fekkente ne ànd gi ci lislaam ànd amu fi woon kon jàpp nañ ne du amee nii mu amee kon nag nun ñëpp nu gën a sant suñu borom ci lii nga xam ne yàlla may nañu ko te def ko ci sëriñ si ba nga xam ne nii nit ñi wuyu si leen leen ndax li ñuy woote ci lislaam nit ñi lislaama leen ñor kon bu ñu leen wooyee ci lislaam ñu wuy si loolu waral mbooloo mi tey kon nag jërë ngeen jëf ci turu sëñ Muntaxa jël naam mi ngi lay sant waaye mi ngi lay sant santale mbooloo mi nga xam ne ñëw nañ teewoon ndax lépp ñëw lislaam ma kon nag fu ñu wootee lislaam fu ne moom ci boppam bu fa mënoon a ñëwal boppam moo fa ñëw kon nag jërë ngeen jëf noo ngi lay sant bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Isaac Mbacke wax ji rafet na euh, te ci kilifa gi mu jóge tedd gi mu tedd tax na wax ji incha allah day rafet rek tabarakallah ñu ngi leen di sant di leen gërëm monsieur le ministre nu passons à présent la parole au représentant du khalife général de Tidiane sëriñ Ababacar Mansour représenté ici par sëriñ Mansour si Ibn Abdul Aziz Sy Dabakh. Il est accompagné dans sa délégation par Serigne Mansour si Djamil, Serigne Babacar Sy Al Amin, Serigne Ahmed si Djamil, Serigne Habib Sy Mansour, Serigne Moustapha Sy Babacar Sy Mansour, Serigne Sidi Ahmed si Babacar Sy Mansour, Serigne Cheikh Oumar si Djamil, Serigne Moustapha si Djamil, Serigne Ababacar Sy Djamil, Serigne Ousmane si Serigne Imam kebe Serigne Saliou Ndiaye Serigne Alfassi Dabar et Serigne Pape Martar Kebe. Si on a tenu à lire la composition de la délégation de Tuaon, c'est tout simplement, Monsieur le ministre, c'est parce que c'est eux qui sont les parrains de cette 40e édition. C'est la famille de Seyd Maliksi qui est donc parrain de la 40e édition de la ziara dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall. tafadal.